dama ñëw fii ci siège FRAPP indi suñu sutin ci suñuy camarades waa FRAPP France degage parce dama jàpp ni lépp lu leen laal dafay laal FDS les Guelwaar lépp lu laal Y'en a marre day laal FDS les Guelwaar parce que suñuy partenaire stratégique lañ ci xeex yi nga xamante ni dañu ko bokk ci réew mi ngir dooleel démocratie dooleel état de droit ci biir réew mi xeex yooyu dañ ko bokk ndax ñun FDS les Guelwaar dama koy wax toujours parti de combat la parti de combat buy liggéey aussi pour nekk un parti de gouvernement ñiy liggéey ci ñaari levier yooyu mooy waral xeexu askan wi xeexu mouvement sociaux yi xeexu mouvement citoyen yi chaque jour ñu koy bokk ak ñoom kon lu mel nii su laalee FRAPP laal Guy Marius Sagna daf ñuy laal lu laal Guy Marius Sagna may laal personnellement parce que c'est mon frère c'est mon camarade Guy est le symbole aujourd'hui de la résistance de la jeunesse africaine. En cela jàpp naa ni waruñu ko bàyyi ak état waruñu ko bàyyi ak ay procureur yoo xamante ni xamuñu seen responsabilité jëfewuñ seen responsabilité jëfewuñ li tax ñoom ñi nekk procureur xamuñu ko ñi bàyyi leen ñi làqatu ci je ne sais quoi di autosaisir nous demandon la libération immédiate sans condition de Guy Marius ñi bëgg stabilité ci dëkk bi di ko ñaan jamono bu ne di ko woote jamono bu ne pee jamono bu ne ñi ngànk nguur gi am responsabilité aar yiir jàmm jooju stabilité boobu nañu xam ni stabilité boobu mënul am ci suñu réew mi ku mel ni Guy Marius Sagna di nekk prison ca ci dara procureur de la république ba Gueye xamul responsabilité am jëfewul responsabilité xamul palaasam jëfewul li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom fii ñu toll ci réew mi su fekkoon moom xam na responsabilité am yéene jëfe responsabilité am li fi nekk ay dossier yoo xamante ni askan wi ñu ngi ko ci xaar àdduwu ci waxu ci dossier yooyu bari na ñi ngiy wax ay faux billets ñi ci impliqué wu ñan lañ ay député de la république député yooyu dem bay accuser la gendarmerie nationale de notre pays di ay institution yu accuser ay institution ana justice ñooñu di defar ay faux ñoo ñooñu ñoo reprendre seen place dans la société dem ci rajo yi ak télé yi di xas nit ñi di xas askan wi dem ci télé yi ak rajo yi reprendre seeni activité politique ca dara xewul boobu ba léegi procureur Bassi Bassirou Guèye justice ci réew mi bu fekkee am na jàpp naa ne am na suffisamment de travail ci jamono boo xamante ni ab institution lëmb éclaboussé nañ ko ci ay passeport diplomatique ay député yu bëri ñii naan ñaar ñii naan ñett ñii naan ñeent ñii naan juróom ñii naan ay vice président de l'Assemblée nationale yooyu yëpp coow loolu boobu ba léegi justice deful liggéeyam ñi ni ñoom dañuy def seen liggéey ci Guy Marius ñoom dañuy def seen liggéey ci activiste yu Y'en fii ku naa fekkul xam ni fii ci Sénégal justice amu fi walla justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey li fi di ay dossier yu ay citoyen sénégalais jël yóbbu ci justice ca justice àdduwu ci bari na lool lool lool ci dëkk bi man fii laa nekk rëbës ñi agressé ma à rëbës ma génn def sama plainte booba ba léegi plus d'un an man citoyen sénégalais laa wala duma citoyen sénégalais kan la ñuy nax kan la ñuy waxal nous exigeons la libération sans condition de Guy Marius Sagna bu mu ñu yëngal man Thiès laa jóge fan yëpp maa ngi foofu en ce moment là je devais être à Thiès dans le cadre de la coalition de Yewwi Askan Wi parce que je suis le point focal à Thiès dans le département pour l'installation des structures mais dama ne lu laal Guy Marius Sagna laal ma boo mu ñu yëngal su fekkee ay manifestation la bëgg la voie la plus rapide pour Macky Sall na maintenir Guy Marius Sagna dans la prison su fekkee place de l'obélisque la namm bu fekkee rek loolu la namm na maintenir Guy Marius Sagna en prison bu fekkee place Washington la bëgg ñu occuper ko na maintenir Guy Marius Sagna en prison je suis très clair je suis formel et j'engage FDS dans ce combat je peux parler au nom de FDS Les Guelwaars j'engage notre parti dans ce combat nous exigeons la libération de monsieur Guy Marius